responsable politique yu APR yu fari ci diwaanu Kaolack ñu ngi wéyandi di gën a féewaloo seen biir lu koy findeel meeting bi nga xamante ni amaloon nañ ko te boolewuñ ci jaraafu dëkk bi di Mariama Sarr Benno Bokk Yaakaar communal bi daal di génn di ñaawlu li nu mel Mapate Ba bokk ci LD. waane li xew mooy meeting bi ba muy am muy responsable euh, mouvance présidentielle bi wala responsable Benno Bokk Yaakaar. mais surtout madame le maire Mariama Massar, bi nga xamné né mom moy jité coalition fi ci commune Kaolack associé wuñ len ci conception bi du ci élaboration bi du ci organisation bi dudul Maria Mariama Sarr ci simple SMS la yëgee ne dañuy def meeting dans la euh, dans la ville bi nga xamné né mom moy maire bi donc lolu muy wane né deug deug du ab fonk kilifa gi nga xamné né mom la ilif

qui sont présents dans la commune et qui sont membres de Bernard Bokoyakar et de la mouvance présidentielle, à chaque fois, elle cherche à les impliquer dans tout ce qu'elle fait au niveau de la commune de Kaolack. ngir rek ñu liggéeyal njiitu réew mi Macky Sall ci anam bu mucc ayib mom Mata mapaté Ba japp na ni faw rek ñuy xàccandoo di dorondo. aujourd'hui li nga xamné né mom mo ñu war moy ñun ñi ñëpp muy coalition bi di Benno Bokk Yakar, mouvance présidentielle ñun ñëpp ñu nekk benn nek Ben say autour du président de la république donc lolu motax tax tey ñuy pour que ñu xamné Benno Bokk yaakar tay la gëna am doolé tay la taxaw pour le président Macky Sall la population yi wolu Mom la askan donc le président il est à la fois légal et légitime. meeting bi nga xamanteni yenn ci responsable politique yu benn bokk yaakaar daal dinañ koy amal niki aljuma bi ñu genn bari na ci ñenn ci responsable politique yi fari ci diwanu Kaolack ñi fa ton lolé rek di gëna féolo nga xamanteni amna ci biir APR ak ci mouvance présidentielle bi li nu mel tax ba benno bokku yakar communal bu Kaolack di sàkku unité ngir rek ñu mëna liggéeyal rew mi Macky Sall ci. anam bu mucc ayib